Euh, alors tudd tudd nga léegi combat certes sa bos combat de principe la mais gis nañu ñeneen ñoo xamante ne combat bi ñuy woote mooy xale yi wàcc ci ci mbedd bi bu ko defee ñu ñu résister face à ñoom peut-être lu ñu jàppee ay dérives yu yu président Macky ñu gis sorti boo xamante ne def nga ko ci di di ñaawlu méthode boobu wala stratégie boobu nga xamante ne ñenn ñi am nañu euh, euh, am nañu ko ci alors. tey euh, am na am na ñu bari ñu la ci critiqué ñu jàpp ni que posture boo amoon en 2011 dafa ute ak bi nga am en 2023 euh, dañu mal interprété say kàddu wala lan la. non ñoo ko tey. <laughs> Ah. nous sommes en politique aussi xam nga dafa sama benn xarit bu ma envoyé message pour la première fois vingt ans de politique ñu vaar la ba ne ko non kenn vaaru ma. Mm-hmm. parce que vaar ma du yomb man je suis sur les principes man su may nelaw ba xaaji guddi soo ma yee di ma wax dara. décision su ma ko waree jël li may njëkk xool mooy c'est quoi le principe. je parle pas de combat de principe. je parle pas de combat démocratique soo gisee ci vidéo à dama ne luy mel ni nag combat démocratique ñu ñoo war a jug je l'ai dit. Mm-hmm. quand ce que je disais avant c'est des combats de personnes. Mm-hmm. des combats crypto personnels. Mm-hmm. parce que yow tey soo nee Fatou mii dafa am lu la loo am loo ko amal Fatou ne la. comme amal nga ma dara nañ dem tribunal mais yow ak Fatou yéen ko seq. yéen ñaar yéen a ko seq. man xaw ma sax man su dee far naa ak yow xaw ma sax ndax am nga ko wala amoo ko ba nga koy wax tàggoo ma. da toog jël ko exposé ko tàggoo ma man tamit ma respecté ko. mais donc mënoo jékki-jékki nañ léegi nañ ñëpp jug ndax loolu. loolu mooy différence bi je parle combat de personne par exemple tey man su ma amoon yow ak problème tribunal. su dee damaa jàpp ne dama war a mbooloo damay jël sama famille ma ànd ak ñoom parce que c'est personnel. Mhm. je prends ma famille. mais man jàpp naa combat de principe sax waroo yóbbu sa famille parce que man sama doom bëgg naa mu su ko neexee mu fan waa Benno wala mu fan keneen man mhm. je suis démocrate. Mhm. su ma sañoon voilà man du ma endoctriner samay doom mais je veux dire. su dee lu loo xam ne affaire famille la yow la concerné yow ak nit su la neexee nga ànd ak su dee da nga jàpp ne ne mbir ma dafa laaj dafa laaj nu taal li gënal gënal sa famille nga taal foofu. Mhm. mais bul si boole ñoo xamante ne bokkuñu si. loolu laa wax mais mais ça différent mhm. des combats de principe. bu bu fekkee ça c'est autre chose. parce que ma daaneel foofu rek parce que euh, combat de principe yi jaruñu jëli loin naan ba mu nekkee 2011 déedéet <laughs> yàggul jour bu ñu waxee dañuy jël si Ousmane Sonko këram. kam moo fa jiitu dama ñëwoon pour xeex wala ñëw moon pour xeex mhm. lacrymogène yooyu kan fi kan la dal mhm. ben voilà mhm. donc ñun combat de principe damal ne dañ koy xeex mais suñ koy xeex dañuy jiitu combat yi ñu mës a def dañuy jiitu joxe l'exemple ñëpp topp si. te su boobaa mun nga woo ñëpp ñëw parce que su boobaa ku ne ku ñëw am nga si droit parce que c'est des combats de personnes ñëpp ko bokk. mais su dee combat de personne la mun nañ ko gérer man mun naa am euh, problème ak kenn ñu dem tribunal mais y a pas de souci. mais bu dee combat de personne comme dans ce cas boo xamante ni ki ñu ki ñu tuumaal ki ñu yóbbu si yoon moom jàpp na ni que politique daf ci rax bu baax a baax tax mu mu mu njott ni na mi ci ñu wàcc ba xëy na 2024 euh, élection yi du ci bokk. non xam nga xam nga man ba ma commencé si vidéo bi dama ne man du ma du ma du ma interpréter du ma jàmbur. Mhm. je l'ai dit moo tax <laughs> si sa méthode sax ñu may wax kii parce que man tudduma kenn. dama de mhm. man duma ma commenter méthode du Gambie nit am na droit. e quand les gens me disent non yaa ngi doon wootee résistance et tout ça mais sama vidéo bu mujj bi rek wax naa résistance ne man j'ai toujours résisté mhm. résistance ñëpp fi am droit mhm. et je l'ai fait récemment donc chaque fois je le fais à chaque fois que l'occasion se présente je dis les les ñëw tey mu ñëw suba mu kii ak combat yi nga xamante ne ne des combats de principe mënoo mënoo yëkkati Sénégal combat de principe boo xam ne ñu si parce que mënuñu sax toog suñu kër mhm. donc tàmm nañ di woote pour nit ñi ñu ñëw xeex parce que combat de principe la. su boobaa it du ñu jiital kenn dañuy ñëw taxaw. ba ñu waxee assemblée nationale dañu war a voter parrainage 10 nañ daje foofu dox dem assemblée nationale dama ñëw 10 heures gisuma kenn ma génn dox assemblée nationale. bañ ne électricité bi dañ koy yokk ñu ne kenn du fi manifester électricité dañ koy yokk te Sénégalais yi sonn dama ñëw fu ñu fu ñu waree manifester ma manifester ñu jàpp ma. donc loolu on l'a toujours fait parce que loolu la ñu gëm. mais su loo xamante ne dafa dafa dafa kii maintenant. mënuma commenter mu nit am nga droit nga ne peut-être damaa mën peut gis na sax lu ma gisul et cetera mais man dama jàpp na ne fii ak maa ngi nekk Sénégal di def politique lépp lu touché les population su ma si waree wax dama siy wax. Mhm. te lii mu ngi touché population yi population yi kan moo leen waxal. Mhm. mais ana ñi ñi ñu ñuy yàq seen boutique lan lañ def. Mhm. ñu ñuy taal seen i seen i seen i seen i fu ñuy liggéey lan lañ def. lan lañ def xale yu ndaw yu ñuy rey. lan mooy seen yoon. Mm-hmm. lan mooy seen yoon. bien que sur ça et ça loolu laa njëkk a commencé sama vidéo bi j'ai dit boobu ba léegi kenn deful enquête si loolu. 14 mois mars ñu ñëwaat encore ay dee di am am na ñuy tiire si ñoom. mais mais mu ñu ne woy police bi la wala gendarmerie déedéet. da xool kan la ñu def enquête xam kan la. Mhm. parce que tiim ay manifestants ñu yor ay xeer nga jël bal réel mun nga jël leneen ak leneen ay lacrymogène mu ngi fii leen fii ku ñu fi doon lacrymogène doo taxaw ñun ñam nañ lacrymogène ba mhm. sëqat bay bëgg a dee. Mhm. donc mun nañu xool lu ñu defaatee euh, maintien de l'ordre et ça c'est de la responsabilité de l'État. mais suñuy woote tamit nañu xam si lan la ñu war a woote. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. sànq tout à l'heure yaa ngi wax ne bi ngay dem ci kër Ousmane Sonko parce que boobu da nga ko doon défendre par principe. lan moo différencier dem boobu puisque bu fekkee ne entre personne la c'était entre lui et Adji Sarr. bu fekkee boobu ngay wax. bii c'est entre lui et Mame Mbaye Niang. ban différence la am ba nga jàpp ne ba c'est un combat de principe. bii nga jàpp ne c'est purement privé. la différence mooy da ngaa globaliser. là je te je te j'enlève un aspect du combat. mooy il est député procureur ne dañ ko dem jëli. d'accord ma xam ne dafa am immunité parlementaire dañu war a lever immunité parlementaire am soog ko mën a mën a mën a yóbbu d'ailleurs noonu lañ mujjee j'ai dit non kenn du ko yóbbu je suis parti je suis resté te je sais que ba ma fay jógee ba may jógee sama kër j'ai dit à mon épouse maa ngi dem mais xaw ma kañ laay ñëw elle a compris parce que tàmm na ko parce que man bokk ma si ñuy daw donc je suis parti donc ça c'est le principe mais tu m'as jamais entendu parler de ce dossier est-ce nga ma dégg ma wax si mosuma si wax mosuma si wax donte j'ai toujours di aux nañu vigilant parce que président Macky Sall nu mu doxalee ak Khalifa Sall doxalee ko ak ñeneen ak ñeneen mais mun na ko doxalee ak son ko mun na ko doxalee donc loolu on n'est pas fou xam nañ ko moo tax ma ne il faut vigilant moo tax à chaque fois ñu gis loo xamante ne méngoowul ak lu muy def dañuy taxaw parfois fu ñuy taxaw fa ñu la gën a bëri wax duñ fa taxaw waaw mais nag su dee dañuy distinguer su dee loo xamante ne ne réglé woon nañ ko assemblée national accusé nañ ministre ba ministre ba tontu na assemblée yow nga ñëw toog ne yoor nga mbir yi waaw mais loolu yow yaa jël décision wax loolu kooku ne la nañ dem yoon mais lam moo si lam moo si lam moo si sénégalais yi la est-ce que nit war na si mën a sëqat mais su doon dégâts yi je d' accord nag su dee da nga ne non samay militant ñëw leen ñu dem et cetera yooyu yëpp nee naa yooyu duma ko analyser du ma ko duma ma ko du ko duma ko commenter mais dama ne inconvénient yu mu am si population yi ñuy jël alalu nit ñi di dajji magasin yi di di di di barrer l' économie de ce pays. Mm-hmm. est ce que loolu jar na ko. est-ce que loolu c'est normal. ci loolu benn benn interview ou var peut-être boo xam ne mi ngi circuler depuis mhm. tout à l'heure euh, mënuñu lire lépp mais bu ñu ci jëlee paragraphe bu ndaw. Mhm. boo jàpp ne euh, waruñu toog. ci mhm. dernier derrière derrière les claviers. dañu war a euh, résister et rester debout. nga teg ci ne dëkk boo xam ne nit ñi amuñu confiance ci justice. parce que dafa nekk ci ordre du régime ou quelqu'un qu'il y a problème. Mhm. est-ce que du gis-gis boobu nga amoon. gis-gis boobu la am tey. non d'abord ba jàpp ne nit ñi nit ñi taxaw. non d'abord wax loolu d'abord si ban dossier la. soo ma mënul wax dossier mën naa parce que nee la man du ma mën a réer si politique parce que je suis sur les principes. Mhm. nañu taxaw nañu loolu yàgg naa ko wax nee la ba ma koy waxee yàggul. ici vous avez parlé de la justice. non justice ak yëpp si am mais mais mhm. Khalifa Sall <laughs> des dama mais dama leen laaj pour que ñu bàyyi ko ak keneen nag keneen Karim Wade euh, euh, ñeneen même même Omar Sarr bañ ko jàppee ba Abdoulaye Balde man taxaw naa buntu CREI ñu jël lacrymogène dugal ko sama suufu yére mu lakk buntu CREI mais fii lu ne def nañ ko jàppale nañ fi ku ne donc wootee nit ñi dañu war a défendre maa fay jiitu nag ah, maa fay jiitu dañu war a taxaw défendre la justice wax nañ ko démb wax nañ ko ba yaay récemment dinañ ko wax suba. Hmm. dañu war a défendre nit ñi mais maintenant s'il y a un procès est que j'ai dit une fois bu kenn dem justice mos nga ko dégg dañ ma vaar loolu est que j'ai dit une fois nañu magistrat yi kenn warul juger kenn non. justice mel na nu mel mais justice moo fi am. kenn jugé sa bopp sa nangul nañ la quand même yu bari yoo xamante ne vous avez été. ak loolu kenn mënu ko dindi. mais li ma bëgg xam mooy est euh, euh, peut-être benn benn benn mere. wala mhm. benn ñagas ñagas ci sa diggante ak Ousmane Sonko depuis bi mu yëkkatee kaddu ci élection législative yi jàpp ne à part Yewwi Askan Wi euh, yeneen ak wàllu yeneen candidats yëpp dañu nekk ci solde président de la République. non non c'est mais xam nga c'est derrière bañ tojee vitre am vitre oto am. fekk ñiy wax si man ils ne parce que lu leen di arrangé rek wala dañuy topp buzz bi ba ñu tojee vitre oto am je l'ai dénoncé bañ ko récemment démb xawma ma keroog bañ ko ma masawu naa ko mais politique la ñu nekk politique soo soo euh, attaque riposte la soo attaqué nit ki da lay tontu parce que moom moo ko mais après jeex na. Mm. <laughs> looy dencal nit ki pourquoi. alors Thierno est-ce est-ce que benn pàcc ci opposition bi amuñu problème sur la façon de faire de la politique du leader Ousmane Sonko dont vous ndax. amoo leen jafe-jafe euh, ci la façon de faire de la politique Ousmane Sonko. non commenté wuñ sax façon bu muy defee <laughs> déggoo mën a la. déggoo laaj la rek la rek waaw a non xaaral ma ñëw dama lay tontu. Mhm. dama la bëgg wax a la ji nga politique soo koy def nekkal sur les principes transcende les personnes. Mhm. que mën naa fi jóge tey. Mhm. yàlla na keneen ak keneen ak keneen. donc mbir mi du mbirum nit. et ñun du ñu doxee émotion. ñun dañu am expérience politique. waxuma kenn amul expérience parce que gars yi da ngay wax ñu foog ne da ngay wax ak kenn léegi moom il faut ngay préciser. ñun dañu expérience politique maanaam ñun dañu mën ay combat xam nañ lii lu muy jar am na erreur yoo xam ne dañu ko defaat. am na peut-être yoo xamante ni duñ si doon dugg. Mm-hmm. et cetera et cetera parce que lan ban njëriñ lay amal askan bi fan la ñuy yóbbu. Mm-hmm. gis nga gis nga dama déglu keroog Blé Goudé Côte d'Ivoire euh, muy wax ci affaire événement yu amoon en Côte d'Ivoire est-ce que ne Côte d'Ivoire dix ans de conflit trois mille morts hmm. mais la mujjee ñaar ñu gën a nekk les principaux concernés hmm. Laurent Gbagbo Alassane Ouattara hmm. Alassane Ouattara il est président ba léegi il s'est offert le luxe d'avoir un troisième mandat gars yi dañu naan non dafa jàll ma ne leen non les ces pays là sont trop les peuples sont hmm. parce que dañoo ñam guerre dañoo ñam conflit. Hmm. duñ mës a dellu si conflit mun nga def cinquième mandat jàmm moo leen di gën a lu ne. Hmm. parfois parfois dafa am nit ñi fu ñuy jaar. mille morts moom il est il se paye le luxe de violer la constitution nekk nekk nekk kii defaraat constitution comme lu ki def rek. pour troisième mandat voilà pour troisième mandat. Laurent Gbagbo ñu bàyyi ko mu ñëw ñu jël 2 milliards dugal si comptam ñoom ñaar ñu gisee di reetaan di kottante. Mm. ñu ñu dee ñëpp si mbir mi anañu. quand même famille yooyu yëpp anañu. Mm-hmm. mais c'est comme ça la politique parce que politique du. tôt les gens se se se retrouvent. très bien parce que contexte la. Mm-hmm. mais nañu def luy avancer réew ñi nga fii ñu toll nii. Mm-hmm. je l'ai dit et je le répète avant sama vidéo bi am na beneen vidéo ku dem sama page bu nekk ci suuf. je l'ai dit les combats démocratiques on doit les mener. su jaree xeex da dem xeex. mais dafa am lu ñuy xeexee. très bien sensation bi. les man daanee foofu rek les combats démocratiques. Mhm. sont des combats d'opinion. Mhm. maanaam ngeen ma toog fii ma ñëw toog ngeen xëcc ma kër kër. c'est comme Guy Marius lu mu def assemblée ñu bëri ñu ngi koy mais c'est ça c'est l'opinion parce que tere nañ ko droit am mu taxaw ne non lii et cetera c'est pour l'opinion. Mhm. mais su policiers yi ñëwee da taxaw. les combats démocratiques c' est pas des combats armés c' pas pour dem rey ay policiers waxuma dañuy bëgg a rey policiers rek de mais dama ne c' est pas pour dem attaquer ba demoo pour gagner. da nga dem pour fësal ne ñu ngi lay xañ sa droit. c' est ça le combat démocratique. d' accord alors c' est pas pour dem tey suñu suñu suñu. comme lu ñuy wax ñii suñu ñëwoon jug kon policier yëpp su policier yëpp nërmeeloo ne que moo koy <laughs> bi sénégalais am xëy na moo leen a déranger tuuti muy euh, opposition bi nga xam ne dañoo waroon dajaloo comme ni nga ko waxee ci ay combat de principe yi nga xam ne daf leen di daf leen di boole opposition a diviser am nañu a wu yenn sénégalais yi am la. Mm-hmm. Euh, ban lecture par rapport à. waaw non xam nga sénégalais yi man dama bokk si ñuy xeex si benn théorie. parce que ñenn ñi jàppoon nañu ne bu ñu sañoon un Thierno Bocoum un Bougane un Sonko un keneen ak keneen ak ñoom ñëpp euh, Abdourahmane Diouf ñoom ñëpp booloo dans une même opposition xeex lu ñuy xeex. oui mais mais on l'a tenté tu sais xam nga. man dafa am combat bu may mëne pan pas mal d'années am na nag ñu ma ko bokkal. mooy sénégalais ñu gëm ne ñu gëm ne les oppositions moo am. Mhm. comme nu mu amee yeneen réew parce que xam nga li tax c'est ça la diversité la diversité c'est une richesse mm. ce pas une tare et si tu n'exprimes pas la diversité tu n'exprimes pas la plénitude de ta personne soo wanewul li nga doon sa identité mm-hmm. parce que xam nga différence bu ñu am ñun fii Sénégal parce que dañu bëgg gëm ne il ngeen nekk ensemble waxuma waruñu nekk ensemble de mm-hmm. mais comme dañuy bëgg gëmloo loolu parfois duñu assumé loolu moo ñu différence ak yenn pays yi soo gisee la vivacité de la démocratie pays bu mel ni France parce que moom laa mën a joxe ndax euh, Sénégal yu bëri dinañ comprendre vivacité bu fa am parce que ku ne da ngay assumer man je suis de la gauche je suis je au centre je suis bokk ma fii bokk ma fële kii ne man lii laay kii kii ne ma ne ñii buñ buñ duggati suñu réew kii ne non man socialiste la hmm. voilà. d'accord te da ngay dem élection yoo xamante ne ne comme élection yi passé gis ngeen Mélenchon ak euh, Marine Le Pen. Mhm. Mélenchon ne votera jamais pour Marine Le Pen parce que du question de daf ko bañ. bañu ko du question de bañal politique warul am bañal. d'accord bañal amul sens mais c'est parce que lu muy defendre moom dafa wute dafa contraire ak kee lu muy défendre mu assume ko. donc fii il faut que ñuy assumer ne man nii laay gisee. Mhm. nga nangul keneen ki mu gisee neneen. C'est très important. C'est clair. la démocratie. Alors, sur l'histoire des, de des, des, scandales financiers, si on peut l'appeler ainsi, Cour des comptes euh, jaar na fi ak rapport Covid bi bi ci mujj mooy mbirum 98 milliards yi déjà li ma njëkk li ma la bëgg njëkk am envie laaj mooy président Bougane Gueye porté ko mais dégguñu ci ni lu pouvoir mais quand même dégguñu ci aussi l'opposition kenn waxu ci euh, loolu aussi est-ce que nekkul lu nga xam ne day delluwaat ci li Sénégalais di xalaat que on a une opposition quand même euh, qui est un peu divisée. non mais il a tout notre soutien pour loolu. oui mais dañ leen ci. xam nga non euh, waaw au moment où scandale bu toll ni quatre-vingt-dix-huit milliards ak détails yu ñu ci andi yépp aujourd'hui dégguñu ci une opposition. vraiment apporter. waaw euh, peut-être peut-être que moom peut-être que moom indi indigu ko ci cadre opposition bu ko mën a jël en charge peut-être. Mhm. peut-être que pour l'instant il veut l'expliciter daf ko bëgg a leeral. Mhm. du ñàkk ci combat yu ñëw mu mu mu bokk. si lu ñuy lu ñuy mettre dans dans le cadre parce que c'est des combats de principe loolu laa combat de principe yi mhm. mën nañ ko bokk mën nañ ko bokk moi je le soutiens parce que je le dis très clairement euh, maintenant miinuma dossier bi comme nu mu ko miinee. Mm. ah euh, mais ce que je veux dire clairement mooy il faut que ñu am culture de la dénonciation. Mm. parce que dans nos pays amuñu problème mu richesse lu ñu am mooy problème éthique problème valeur mën a garder suñuy richesse mën a fexe ba ñeneen ñi duñ ko jël di ko pasar pasare loolu problème yooyu lañu am moo tax da ngay am parfois ay nit yoo xam ne dem nañ ba yegg pouvoir mais ñu def leen su nekk su dul noonu donc on a besoin de dénoncer et de, la dénonciation elle est dissuasive. mais mais si combat de ci combat de principe yooyu autant moom euh, waroon na ko mën a yaatal ci yéen mais est-ce que yéen tamit autant de votre côté waru leen na a laaj ci dossier bi saytu ko pour que mu nekk pour l'intérêt de tous les Sénégalais. mais tu as raison comme nu ma koy défendre aussi parce que mënuñu ñun. Euh, bañ a appuyer ñoo xamante ne dañuy di pointer du doigt la malgouvernance du président Macky Sall à chaque fois que mu am leen loo xam ne war nañ ko pointer du doigt dañ koy pointer du doigt maintenant je te dis encore une fois man maîtriser wu ma man soo xamee nu may defee man euh, damay vérifier damay xool man damay saytu damay gëstu maanaam su ma bindee texte pour nga weddi ma fi du wax ma doo ma weddi nag waaye du mën nga ma weddi waaye pour nga du du yomb parce que dañu jël suñu temps. Mm-hmm. donc lu ma mën a wax mooy lu ma imprégné wu lu ma xam mais quant à la décision de chaque fois nga gis dara loo xam ne jaadoon nga teg ko sur la table. mais loolu dañ ko fi encouragé. Mm-hmm. Euh, alors euh, keneen koo xamante ne itam bëggoon na ay explication euh, muy Hadjibou Soumaré nekkoon fii.